kon mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey ay soixante-dix-neuf ci suuratu yusuf qaala ma'aaza allahi an na'xuza illa man wajadna mataana inda page 245 bi ay 79 alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala kon mbokk yi ñu ngi nekk nii tey ci suñu juróom benneelu daje pour xale yi dégg muy juróom benneelu épisode ci film bu mag bi nga xam ne suñu boroom dañu koy nettali ñuy fàttali film moom ñaar la am na film yoo xam ne fiction la ay xalaat rek nga xam ne nit ak ay xalaat di ko créer am na nag loo xam ne dafay amoon ñu koy tourner di nga fàttali te loolu lañu gis ci film yu bari li ñuy joué ci ay kilifa yu fi jaaroon amma bu dee ni nañ koy waxe woon ci njëlbeen bu dee ni film Yuusuf ba demee ci internet bi gis ci film yu dul jeex yuñ tourné ci Yuusuf alayhi salaam waaye dana néew lool nga fekk ca film boo xam ne dëppoo na à cent pour cent ak réalité bi ca réalité ba ca am ki ko xam mooy borom asamaan ak suuf ñu fekke woon lépp loolu kon moo ñu koy nettali liñ ci mujjoon a jël démb yusufa alayhi salaatu wassalaam kompaloo na ak rakkam te mooy danaa jël lii di nattukaayu buur bi dugal say bagage jiiñ la sàcc ngir man la fi téye te bokkoon na ci sharia Yaqub nit ki boo ko sàccee dañ lay forcer nga nekk jaamam pendant un an loolu yi bañ tëralee complot bi mu daal di koy def ci kanamu ay frère am Biniyaam yi nit waxu ci dara loolu yi kon ñu jàpp ko def ko jaam ci kanamu ay frère am frère yooyu nag daa di ne Yuusuf alayhi salaam doonte ne ñoom xamuñu ne yuusufa la ñuy waxal daal dina ko ay yow mi nga xam ne yaay kilifa misra ayuhal aziz te booba gannaaw buur bu mag bi pouvoir bi gën a mag yuusufa moo ko yor ñun dey kii nga jàpp bàyyam ma nga ca kër ga dafa mage lool te bëgg ko bëggeel goo xam ne jéggi na dayoo moo tax ñu bëgg nga xool ci ñun fukk ñi yépp képp koo ci bëgg nga jàpp ko def ko jaam ca kii nga jàpp moom nga bàyyi ko mu ànd ak ñun loolu lañ mujj woon jàng démb kon ñu seet insha allah lan la yusufa di tontu ci loolu ñu bàyyi ak Cheikh Alioune
فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال يا التي كنا فيها والعي والتي أقبلنا فيها وإنا لصادقون بارك الله فيكم kon loolu biñ ko proposé yusufa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوسف كنت للنلين قال ما أعز الله ما يسك للقوش يلا أن نأخذ إلا من وجدنا متاءنا عنده ci ñuy dem bay jël lu dul ka nga xam ne dañoo fekk suñuy bagage ca moom inna idan la zalimun lool day buñ ko defee kon nga xam ne ñun ay tooñkat lañu fa lamma stayasu min bañ demee ba ñikki ci moom ba amatuñ ci moom benn yaakaar xalasu najiya noonu lañu wéeti di deeyoo qaala kabiruhum noonu la waxe seen mag ja alam taalamu anna abaakum ndax yéen xamu leen ne woon seen baay day qad axasa alaykum mawsiqan min allah jàpp na ci yéen li di kollëre gu bawoo ci yàlla wa min qablu ma farrattum fi yusuf ak la jiitu la nga xam ne gàttañ lu woon ngeen ko ca yusuf falan abraha al ard duma teqalikoog suuf bi xatta yazana li abi xanaa lu dul sama bàyyi ma ma jox ndigal aw yaxkum allahu lii wala boog yàlla atte ci man la ko soob wa huwa xayrul xaakimin ca moo gën ci ñépp ñoo xam ne dañuy atte irji'u ila abikum dellu leen ci seen bàyyi fa quulu ya abana inna ibnaka sarax soo demee ngeen na ko ah bàyyi sa doom dalay sàcc na wa ma shahidna illa bima alimna ñun nag seede wuñu lu dul li ñu xam rek wa ma kunna lil ghaybi hafizin ñun day nekkuñu ci kumpa di ko mën a wattu was'al al qaryata allati kunna fiha laajal dëkk ba nga xam ne fa la ñu nekkoon te mooy waa misra égypte wal ira allati aqbalna fiha laajal caravane mooy njëgg ji nga xam ne ñoo ànd ba nibisu ci dëkk bi ay bàyyi wa inna la sadiqun ñun day ñu dëggu lañu ci wax ji ñu la wax ñu ngi noonu mbokk kon yeneen ci yàlla yuusufa wax na frère yi maa ngi làqu ci yàlla ci jël keneen ku dul kama fekk samay bagage ci moom ca itamit yonent yi dañuy jàngal nit ñi ne doomu aadama bi sa kattan rek du la may nga def lu baax wala bàyyi lu bon lu dul yàlla jàppale la moo tax mu ne mi ngi muslu ci yàlla mi ngi noonu yaa ngi fàttaliku keroog ba ko soxna premier ministre bi woowee ci néeg ba ne ko xëyta nag pare naa kaay ci njaaloo lii la ko tontu woon ma allah maa ngi sakku làqu ci yàlla mi ngi noonu ci ñi jël lu dul ki nga xam ne dañoo fekkee bagage am ci moom te it mbokk yusufa gi leen suñ ko defee tooñ nañu ngalwaay mbokk xam leen na ci lislaam la taziru waziratun wizra ukhra amul kenn koo xam ne dañ ko condamné ngir mbokkam dafa def erreur maa ngi leen di wax fii lu yàggul dara di leen fàttali en 89 mi ngi noonu yàlla dogal na tey ñi ngi ci 30 ans en 89 ci weeru koor lay ñu yàlla nattoo woon ay xabaar ñëw ñu ne kat naari mauritanien yi ñu ngi rey nit ñi ñuul ñu foofu di ko sun ndaw ñi déggee fu naar nekkoon ñu dem fa grand yof gi xawma ñaata shérif lañ fi rend pikin waxi noppi partout ca lañu leen parqué yóbbu leen yóbbu leen aéroport ba déportation ba mu am ci gis ngeen nit Mauritanie ñoom it la fa nekkoon ci ay noir ñu buub leen fu lu ne trente mille nangam noir ba tey ñi ngi revendiqué ne dañu bëgg a dellu mais kan moo def mbir bi ñooñu nga xam ne dañoo teg pen bi ci ñoom mooy ñooñu ñu rendi am na ci ñoo xam ne musuñu teg seen tànk Mauritanie ñe def géej yi xamuñu leen waaye parce que comme naar la rek dégg nga ne naar la da ngay def fii bokk lañu xam ne loolu du l'islam loolu du lislaam mi ngi noonu islaam moom nit ki baayam ak doomam ak jaambur lañ yemale ci moom ki def fët fët bi ci moom lañ koy yemale kenn du ko yóbbu ci keneen mi ngi noonu loolu ñu bàyyi ci xel bu baax amoo droit nit ki masalan rey sa baay yow nga dem di rey baayam déedéet parce que bàyyi defulu dara loolu kon di mbir boo xam ne Yusuf wax na ko ne li ngeen bëgg de su ma ko defee kon man danaa doon koo xam ne damay tooñ gars yi insisté insisté Yusuf a insisté fi mu insisté moom la borom bi ndax dem na nag ba yàq yaakaar ci moom léegi ña nga toog di réunion na am réunion contre réunion ndax ñoom ñoo réunion woon ba ne nu ñuy def ba jël Yusuf a yóbbu ko teqali ko bàyyam tey nag ñu ngi réunion am nañu problème nu ñuy def ba delloo Binyamin baayam ba ñu riñoo seen mag ba nga xam ni bi rakk yi ne nañu rey Yusufa moom moo waxoon déet bu leen ko rey sànni leen ko ci teen bi ñii caravane yi daañ ko jàpp yóbbu ko même mag jooju moo intervenir ak fii daa di ne ah ndax yéen xamu leen ne ba ñuy jógee ca Palestine sunu papa jëloon na ci ñun kóllëre gu toll ni bu leen dellu si fii mukk ci indi lu leen ma binyamin xanaa lu dul dañ leen ne peek yéen ñëpp not leen loolu muy benn ñaareel ba ak jalgate gi ngeen jalgate woon maa farratum fi yusuf loolu xam ngeen ne su ngeen demee suñu bàyyi bu leen ko wax mukk lu mu gëm abadan léegi en tout cas man moom duma duma nibbi yéen bu leen nibbi bu leen neexee nibbi waaye man moom duma nibbi mukk xanaa lu dul sama bàyyi ma jox ndigal na ma ni bisil wala boog yàlla dogal la muy dogal ci man léegi nibbi leen yéen ngeen bu ngeen demee ngeen ne seen bàyyi sa doom jëlee sàcc na te mbokk yàlla na yàlla fay suñuy waajur gis nga boo baaxee doomu ñëpp nga boo bolee nag doomu waajur rek ñoom waxuñu suñu frère ba mais lañ na ko sa doom ji sa doom ji sàcc na ñu ngi noonu surtout nag suñu yaay yi boo bonee moom sa doomi yaay rek ngay doon mi ngi noonu su ko defee sa doom ji de sàcc na waaye bàyyi ñun seede wuñu lu dul li ñu xam mooy daal li ñu seede mooy wër nañ sàcc ubbi nañ ay bagage am fekk nañ ca moo sàcc ca it weddiwul te tubaab yi ñoo naan kii ne di rien consent maadaama weddiwul bàyyi kon sa doom ji moom neexul ba neexul sàcc na xamuñu woon nag ne bi ñuy signanteeg yow contrat ne binyamin mi ñu àndal bu ñu demee dana sàcc wa ma kunna lil ghaybi hafizin ba muy sàcc it bàyyi ñu néeguñu ko su jégoon na sàcc la du ñu jóge ca dëkk ba kon xamuñu xëy bu ñun yaa ngi dégg te mbokk ji ay deux millions ci lañu ñu ne ñoom xamuñu luy xëy non léegi bàyyi bu dee ne xam naa ne doo ñu gëm waaye yónneel ndaw léegi Égypte ku la neex ñu laaj ko kooku ngeen fa jàpp jaam lu tax ñu jàpp ko jaam wala boog bi ñuy ñëw am na jëgg ju ñu àndaloon demal yónnee seeni kër laaj leen ana lu ñu lay seedeel ah bàyyi day dëgg dëgg tey moom li ñu lay wax moom dëgg la la chaque ne la ñuy wax pour ñoom dëgg la waaw parce que ñoom dañoo seede li ñu xam te itamit loolu la ñuy wax toujours ci wàllu at ci ni mu jafee atte waa ji atte du atte lu dul ci preuve yi ñu teg ci loxoom loolu te mën na am preuve yooyu bokkul ak réalité bi am dafay bari lool ci attekat bi loolu tax ñoom dañ naan ah ñun day dañuy wax li loi bi wax waaye nag du nañu ñooy atte mi ngi noonu du nañu ñuy atte dana ma fàttali benn ci magistrat yi fi nekkoon muy Kéba Mbaye yàlla na ko yàlla yërëm mas nañ koy laaj ci parcours am ay jaar-jaaram mu ne waaw bokk na di wax rek danger bi nekk ci àtte nee na bis dafa dem pompier benn jeune dogale ko gàddul koy bagage am nee na ñu mu dem ba ci oto yi bi ma làmbee sama poche bëgg koo neexal mu téye sama loxo ne ko ndax xàmmee nga mu ne ko déedéet mu ne ko ana tel yaa ma condamné woon ko ma combien d'années de prison waaye maa ngi lay waasal ci yàlla ne li ngeen ma condamné woon dara laa ci deful nee na woon ko gannaaw dem dana après daf ko daf ko touché travaillé ko te mooy ñoom ñuy atte ak ñaata nit la ñuy jël ñu nekk ci kaso bi 10 ans 15 ans te fekk defuñu dara ñu nga noonu kon ñoom it li ñu wax ah li ñu seet daal mooy li ñu gis kumpa ga ah nekk ci biir nag loolu ñun xamuñu ko loolu kon mi ngi noonu Cheikh Alim
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم فشغلنا عنهم وقال يا أبتى على يوسف وقيت عيناه وقيت عيناه من الحزن فهو كريم وقيت عيناه من الحزن فهو كريم قالوا تالله تفتر تذكر يوسف حتى تكون قاضا أو تكون من الكاذبين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون بارك الله فيكم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا mu ne déedéet li am kay da leen taaralal seen bakkan bi benn mbir fa sabarun jamil waaye dinaa muñ muñ gu rafet asa allahu an yatini bihim jamia mën na am day yàlla indi leen ñoom boole seen ca ma yuusufa ak rakam ak magam di yahuza innahu huwa al alimu alhakim yàlla mooy ki xam mooy ki xereñ yi wa tawalla anhum noonu la wëlbatikoo dummoyu leen wa qaala ya asafa ala yusuf mu ne waaye maa ngi woo sama tiis ca ki nga xam ne mooy yusuf wabjaddat aynaahu min alxusn noonu la weexe bëtam ya ci ah, tiis ba nga xam ne moo nekk ci moom ah, fa huwa kazim fekk ma nga doon koo xam ni ku fees la dell al ka- kazim mais koo xam ni tiis wa nekk ci moom dem na ba muur na complètement xolam ba qaalu tallahi tafta'u tazkur yusuf ñu ne ko waaye ñu ngi wàcc ci yàlla bàyyi tàmbalee ci nga de di fàttali ko yusufa xatta takuna xarada ba baa ngay doon koo xam ne nii ku lax la jëm ci dee aw takuna min alhalikin wala sax nga far alku benn yoon qaala innama ashku bassi wa xuzni ila allah mu ne déet man kat nekkuma di jàmbat nekkuma di jàmbat bassi mooy sama wax ji may tasaare wa xuzni ak tiis bi nga xam ne moom lay feeñal ila allah ci yàlla dong ma laa ko jëmee wa aalamu min allahi ma la taalamuun xam naa ci yàlla nag loo xam ne xamu leen ko mi ngi noonu mbokk gis nañu na am yanquba mënul gëm doom yi abadan moo tax biñ ko waxee lu mu wax mooy seen bakkan taaralal na leen mbir waaye man sama doom du sàcc seen bakkan taaral na leen mbir waaye man sama doom du sàcc léegi ne danaa muñ muñ gu rafet te it loolu mbokk mooy war a nekk première réaction ci jullit heure buñ tuumaalee mbokkam jullitam première réaction mooy mu weddi ko ba baa nag muy am preuve yu leer yaay Aïcha bañ ko jiineeg njaaloo suñu borom nu mu wax lawla istamitumuhu zanna almuminuna walmuminat bi anfusihim xayra wa qalu hada buhtanun azim aw ifkun mubin moo dina ne lu teewal jullit ni biñ déggee ni diñ ko njaaloo ñoo ne lii day aw dóoral wu rëy la lu teewoon ñu indi quatre preuves quatre témoins ca loolu it mbokk na nga ko xam ci sa mbokku julit ci lépp loo xam ne da ngay sikk sàkk ne yellul mu koy def nga la waay fexeel ba moytu loolu waa bul gëm loolu di ngi noonu yal na yàlla dolli yiw suñu mbokk jiililoo moo fi ñëwoon démb ànd ak naar boobu fi doon def waxtaan bi ñuy paree la dama dafa am benn waay bu ñëw ci fële ci mun xaq bi ci consulat am Arabie Saoudite bi mooy attaché ambassade bi nee na mu indi sama photo man mu ne imam Hassan Sarr moo ko yónni pour ñu dimbali ko ci ay ndogu yi muy organiser jàkkaam jiili na ko jiili na leen kii est-ce que imam moo ko yónni mu nekk foofu di nakal nakal ci lim ma wax moom nee na photo na ko sax mais mu ne ma dana fexe ba indil ma photo bi ala kulli xaal jàpp mu ne xëy na kooku mi ngi ci jàkka ji waaye li ñuy bëgg a wax rek moo di ne ni ngallaway mbokk yooyu yu dangereux la dañuy moytu doomu aadama bi mën ngaa tappale see tappale loolu doy na rek musiba mais nag tappale rek doo boole ci keneen nag loolu nag encore dafa gën a nekk musiba mi ngi noonu suñu borom mu ne ki nga xam ne dafay def ay tappaleem su ma yar mi bihi bari an ba pare di ko jiñ keneen faqad ihtamala buhtaanan mubin isman wa buhtaanan mubina loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax moo tax yanquba bi ñu waxee bu ñu leen déedéet déedéet lii ngeen wax amut mi ngeen noonu ah léegi daal di am mooy man danaa muñ muñ gu rafet léegi benn doom la ñàkkoon muy yusuf tey nag binyamin gisu ko seen mag ñoom ñëpp di yahuza gisu ko mu ne nag danaa muñ muñ gu rafet su neexee yàlla mu dajale ñoom ñett ñëpp indil ma leen te it mbokk soo nekkee ci natt natt yi nga dem jàpp ne mi ngi wàññeeku waaye natt yi gën a tar rafetal njort ci yàlla ne yaa ngi jëm ci fin natt bi looloo tax Yanquba moom biñ ko yàlla nattuwaatee yeneen ñaari doom encore mu ne nag mën na am yàlla mu indil ma leen ñoom ñëpp ndax mooy ki xam mooy ki xereñi gannaaw ba la wëlbatiku ci ñoom daa dina yaa asafa loolu arab da ko doon wax ci maa ngi woo sama tiis ala yuusufa ci yuusuf tiis boobu dem na ba mu gumba benn yoon wax ko doom ju réer lu metti la yàlla nañ ci yàlla musal mi ngi noonu mi ngi may netti li fii ci ñetti mbaar benn soxna boo xam ne doomam dafa réer bi doom ji réeree toog nañ cinq ans gisuñu ko soxna si dafa muuma mënutul wax yàlla dogal na benn waay moo dem ca Mali ndekete xale bi dañ ko sàcc yóbbu ko Mali fa la ko jëlee ci indi ko mais ndaw si mënatul wax loolu moo dal Yanquba Yanquba jooy na Yusufa ba gumba te mbokk kii mooy yonent ci yàlla bi mi ngi noonu bokk na la mu fassiru ni di wax ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun la ko yàlla may xeetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam mais xeetu jëkkee amuñu ko woon moo tax Yanquba ne yaa safa ala Yusuf maa ngi woo sama kiis amma ñun julit lépp lu ñu daal dañu naan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun day yàlla moo ñu moom te ci yàlla la ñuy dellu suñ borom na ñi mel noonu dana leen defal bushra dana leen bégal ci àdduna mi ngi noonu dana leen doon koo xam ne nii dana leen yërëm dana leen gërëm salawatu min rabbihim wa rahma dana leen defal hidaaya te mooy dana leen jubal ngallawaay kon yow loolu dee ko tàmm heure bu nattu dalee sa kaw waxal inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun ay jaami yàlla lañ te ci yàlla la ñuy dellu Yanquba jooy na ba gumba na fees na xamul lu muy wax doom yi nag na ko ah bàyyi yow day doo deñ mukk di tudd yusufa yusufa yusufa ba nga mujj lax xarada mooy kiy waaj a dee wala sax nga mujj faatu ngir tudd yusufa te it mbokk problème noonu la mel doomu aadama bi ay problème bu ko di bu ko dikkalee da koy da koy ñiisal da koy jeexal ngi noonu bari na ay jigéen ñu dugg ci ay sëy ay sëy yi catastrophique da ngay gis mujj yi ñu naan ah moom day dafa mel ne bant moom day dafa nangam nangam lu waral loolu mooy problème bokk na stress ci lu gën a yàq santé doomu aadama ci la bokk yaa ngi dégg amma nag yow booy dellu ci yàlla di def bari zikrullah di dellu ci yàlla loolee da ngay gis da lay may xol bu dal ba tax suñu borom subhanahu wa taala mu ne ala bi zikrillahi tatma'innul qulub waaye yanquba moom yusufa tolloon na ci moom foo xam ne jéggi na dayoo mu ne leen ay yéen samay doom man sama wax ji may wax ak sama tiis wi jàmbatu mu leen ko de ci yàlla laa ko jàmbat parce que suñu borom nee na dafa leen dummóoyu tawalla anhum daal di jàkkaarloo ak boromam ay yàlla maa ngi woo sama tis ci yow ko ci ci ci yusuf wala yàlla lay jàmbat te it mbokk julit nga la way melal noonu say jàmbat jee ko jàmbat sa borom yàlla moom ku bëgg ku ko jàmbat nga wéeteeg moom di ko jàmbat la nga xam ne mooy soo tiis te la nga yaakaar ak la nga ragal amma moytul jàmbat sa moromi jaam doomu aadama bi da ngay nëbb say nattu comme ni ngay nëbbi say xéewal malheureusement nag am na ñoo xam ne da ngay gis ne li ñuy li leen yàlla wërsëgal ci alal kenn xamul nu mu toll waaye fu ñu toll ñu ngi jàmbat fu ñu toll ñu ngi jàmbat mais voilà nii voilà nii wa lu dul jeex et pourtant day mënoon nañu sant seen borom subhanahu wa taala ci xéewal yi nga xam ne defal na leen ko kon moo tax mu ne man rek sama jàmbat kat ak sama wax ji may wax kat jéemaluma ko ci kenn lu dul ci yàlla doonte ne xam naa lu ngeen xamul mooy li ngeen may wax ci yusufa bi yusufa dee naag yusufa nangam ak nangam xam naa lu ngeen xamul te lan la xamul mooy li nga xam ne mënu leen koo wax ci réalité la bu ñëw ci kanam mooy moom wóor na ko ne du dee mukk yanqooba du dee mukk lu dul moom fukk doom ak benn yi ak soxnaam dañ sujur ci kanamu yusuf lii moom xam na ne moom du du dee mukk ci amul waaye kañ la ko yàlla def yàlla nga koy seetaan yàlla nga koy seetaan yàlla nga koy seetaan ba année bi moo nekkoon quarantième année quarantième année yàlla di ko seetaan bi muy yàkkamti gis yusuf yàkkamti gis yusuf ba baa ngi yegg si fii loolu mbokk mi ngi noonu kon Cheikh Ali barakallahu fikum yankuba wëlbatiku na waat ca doom ya ya baniya ay samay doom idhabu fatahassasu min yusufa wa akhihi ay way dem leen ngeen gëstu ci yusufa ak doomu ndeyam ja wala tay asu min rawxillah ngalla waay bu leen ñekki ay bu leen dagg seen yaakaar ci xettilik yàlla innahu la yayasu min rawxillah li am day mooy kenn du dagg yaakaaram ci xetti lig yàlla illa alqawmu alkafirun lu dul xeet boo xam ne ay yéeféer lañu fa lamma daxalu alayhi bañ demee ba dugg ci yusuf qaalu ya ayuha al aziz ñu ne ko ay yow kilifa gi buur bi massana wa ahlana dur laal nañu ñun ak sunu njaboot lii di ak lor wa ji'na bi bidaatin muzjaat ci dikki nañu ci marchandise moo xam ne bu doyee di la fa aw fi lana al kayla matalal ñu rek natt ba ñu daan nattal wa tasaddaq alayna te nga sarax ñu dolli ci inna allaha yajzi al mutasaddiqin yàlla day dana sar dana fay ña nga xam ne dañuy sarxe qaala hal alimtum ma faaltum bi yusufa wa axi mu ne waa ndax xam ngeen la ngeen defoon ci yusufa ak doomi ndeyam ja is antum jahilun ci jamono bi ngeen nekkee ñu réer qaalu a innaka la anta yusuf ñu ne ko ah ma ndax yow mi yaay yusuf qaala ana yusuf mu ne man mi maa yusuf wa haada axi sama doomu ndey bi mi ngi nii qad manna allahu alayna yàlla day la xéewal na ci ñun mi ngi noonu def na ak ngëneelam ci ñun innahu man yattaqi allaha wa yasbir li am daal mooy ko ragal yàlla ci muñ fa inna allaha la yudiu ajra almuhsinin yàlla moom du neenal mukk yoolu ñay sellal di rafetal mi ngi noonu mbokk kon yaqub alayhi salaam jooy na yusufa ba gumba na mi ngi noonu njaboot gi ñi ngi koy yedd te li lépp ñoo ko ko teg mais mun a leen ay samay doom delloo leen Égypte su ngeen demee gëstu leen ci mbiru yuusufa gëstu leen it ci frère am boobee continuer ñaan te bu leen dagg seen yaakaar ci yàlla waaw mbokk yankuba bi mu naan bu ngeen demee gëstu leen ci mbiru yuusuf ndax yankuba boobu xamoon na kumpa laa yankuba xamul kumpa mbokk dafa am loo xam ne dafa dab lislaam galawaay fexeel ba ñaan yàlla musal la ci dab na lislaam ay ñu ñu tudde ay sëriñ ay cheikh ay yeneen yoo xam ne nit ñi jàpp nañu ni fu ñu mën a nekk ñoom bu ñu leen woowee ñu mën leen a wallu bokk loolu erreur bu na koo passé waa ji nekk ca biir Kédougou otom di daanu mën a yaa cheikh Thiam kee nekk fële ca Kolda ne yaa cheikh Mbacke kee nekk ca Washington ne yaa cheikh si kee ne yaa cheikh Ndiaye kee ne yaa cheikh Sarr mbokk loolu dafa dab diine waaye mbokk nañu xam ne kumpa kenn xamu ko ku dul yàlla jalla waala yanquba alayhi salatu wasalaam mi ngi nii doomam jaa ngi fii ci égypte moom mi ngi jooy ba gumba te moom mi ngi ci palestine te doom yaa ngi jaabante aller retour te xamul ni doomam yi ci yusuf lañ doon dem ba doon loolu dana jooy ba gumba téeréet jooy na ba gumba ndax yàlla xamul ko kumpa googee loolu it mbokk nga la waay jël leen seen xol aj ko ci yàlla bu leen jël seen xol de ko aj ci keneen ku dul yàlla keneen ku dul yàlla xamul manul sañul yàlla rek a xam yàlla rek a man yàlla rek a sañ dogal lu ko neex ci ay jaamam loolee ñu bàyyi ci xel bu baax ñu ngi noonu ah suñu benn xale bu ne Italie nee na dañuy war a dem benn long voyage nee na mu ne dëkkandoom bii dawal oto bi et doo contrôler essence bi ah nañ dem mooy seen diw amul morom seen diw mi ngi Sénégal yeneen ñu dem ba ci diggu autoroute bi rek essence bi ne kapp jeex ah nee na ma xool ko mu xool ma mu ne cell ma ne cell ba mujj ma ne ko noo garaawul comme ñun fii ñi ngi heure bi ñu nekk Sénégal ñi ngi ci trois heures du matin nañ xaar tuuti rek léegi suñ diw yeewu danañu pas dépanné lu koy booy bàyyi liggéey wax waay ah ala kulli xaal mbokk loolu c'est des des des ay ay réalité la yoo xam ne loolu loolu amul mi ngi noonu yàlla nattoo na ma voyage bu ma jóge woon côté Louga di ñëw yàlla dogal ñuy daw ay bët deux heures trois heures du matin oto bi daal di ñàkk essence ah ñuy dem ñuy dem ba dem essence bi bu ñu romb mu tëj ban dajeeg benn borom camion waa ji wax ak moom kooku daal di koy jox essence mu chargé ba pare ñëw di tàll ay waay sëñ diw amul morom ma ne ko jël sëñ bi santal yàlla waaye mu ne fuññi ma ne fuññi ba njëkk si Dakar yaa ngi dégg waaye mbokk gis nga loolu mbir la yoo xam ne na ay dafa boo ci juddoo yaroo ci da ngay jàpp ne lu yomb la fekk ne loolu dañ koy tuddee shirkul akbar jàq woo wallu keneen wala yàlla xëcc la nga sant ci keneen mbokk loolu c'est très grave kon yanquba ngi nii xamul ne yusufa mi ngi misra xamul ne doomam yi yusufa lañuy la ñuy waxal mu ne leen dem leen waaye nag wala tay asu min rawxillah bu leen dagg seen yaakaar ci xëccalig yàlla ay waay jeune bi jóg di wuti wërsëg dóor nga sa bopp gauche dóor sa bopp droite amagoo amoo dara bul dagg sa yaakaar ci yàlla mukk yàlla heure bu ko neexee mën laa xëccali yow mi feebar jóg di faju ji dem nga penku soowu ndeyjoor càmmoñ bul dagg sa yaakaar ci yàlla yàlla heure bu ko neexee mën na la saafara wallahi mi ngi noonu ana ñaata nit ñoo xam ne ni dañuy taxaw naan sama feebar bi jàpp mu woon ci àdduna danaa mas a taxawat yàlla may leen dellu leen wér ba ñuy cëppi cëppi yow mi nga xam ne amoo soxna wër nga ba sonn yow mi amul jëkkër toog nga ba sonn yow mi sëy amoo doom toog nga ba sonn ngal la waay laa tay asu min rawxillah bu leen dagg mukk seen yaakaar ci yàlla yaa ngi ko bañ a leen kenn rek ay dagg yaakaaram ci yàlla mooy yéeféer dem ba jàpp ni lii yàlla dootu ko def yéese rek a koy def amma julit moom day jàpp ni yàlla day jaarale ay jaamam ay étape la tarka bun na tabaxan an tabax ngi noonu benn jeune ñëw na ci man di ma jàmbat jabar takk na takkaat takkaat takkaat ren dafa découragé ma ne ko ndax takk nga sept fois ah yéegagu ba sept kay ma ne ko bul découragé ndax kat suñu maam haajara ba muy dem di wuti ndox pour Ismaïl yàlla nga koy seetaan mu daw safa 400 mètres marwa 400 mètres safa 400 mètres yàlla di ko seetaan ba septième fois mi la ko yàlla doog a xetti ma ne ko comme amagoo sept mariage bul découragé lu yàggul dara it wax naa ko benn jigéen moom it ci ñaari sëy ñett la la jógee tas mu naan def daal dafa découragé góor yi mën na ko déet kon ñii aj màkka day bés ba la ñuy fàttaluñu la nga xam ne mooy mandarga julit dugg nga ci sëy baaxul dugg ci benn sëy baaxul da nga jàpp ne yàlla ñu bon dong la bind da nga jàpp ne góor ñëpp a yem ci yàlla déedéet ñaanal yàlla yàlla mën na la boole jëkkër boo xam ne da la mën a yor loolu kon mbokk julit lépp lay wut ci sa adduna mu tëla continuer di ko wut continuer di ko ñaan wala tay asu min rawxillah bu leen dëgg mukk seen yaakaar ci yàlla mi ngi noonu am nga doom bu dëng yaa ngi nekk di ko yar guddeeg bëccëg bul découragé yow daal del del del yare ko jubbantee ko wax rek la tay asu min rawxillah inna allaha la yasu min rawxillah illa alqawm alkafirun ah léegi doom yi départ nañ bi ñu départ yegg si Égypte bi ñuy fee fekk Yuusufa teeru leen léegi nag ñu ñëw na ko ah tey monsieur le premier ministre tey de dañoo ñëw sunu famille lor moo ñu dal massana wa ahluna dur mooy ñàkk gu tar daf ñoo dal ñàkk gu tar moo ñu dal ba tey day bagage yi ñu daan indi nga ñuy jox pepp tey moom ay poñet rek lañ indi bidaatu musjaat ay yu kenn xamul poñet lañ indi li ñu bëgg daal xanaa mooy nga matalal ñu am natt rek ci sag mbaax te it nga sarax ñu teg ci bokk na lu mu fassiru nii wax sarax ba ñi ngi ci jublu mooy mu sarax leen binyamin sarax leen binyamin matal leen seen natt te sarax leen may leen binyamin ñu delloo mu am it loo xam ne da nga ko war a bàyyi xel mbokk yonent yàlla yanquba yonent yàlla la moom famille ñooy ñi gën ci kaw suuf gannaaw à part yusufa ba nga xam ne moo nekk Égypte xoolal yàlla nattoo leen ak dorru ñu dem ba xiif amuñu dara léegi da nga dellu suñu jamonoy tey suñu jamonoy tey ni ñu gisee njiitu diine njiitu diine dañoo jàpp ne këram moo war a gën a rëy kër yépp otoom moo war a gën a rëy oto yépp ay mbubbam bu jógee dafa war a mel na montagne ila axiri loolu lañ jàpp jongam yi gën a rafet jàpp nañ ne ku mel noonu ah da ngay yow tekk kii wa dara suñu benn jarbaat dafa nekk Italie am kenn ci sëriñu ndaw yu Sénégal yi ànd ak moom ñuy dox lu mujj benn limousine bu gudd romb ko mu ne ko waaw ki jaata lay jar mu ne ko wuu mara chi mara kii dafa cher mu ne ko cëy kii di su ma ko amoon sëriñ si ndaw sëpp danaa def noonu sëriñ si ndaw yëpp lay def noonu mi ngi noonu parce que am na ñoo xam ne nii pour pour seen sëriñ dafa war a am représentation mi ngi noonu waaye sëriñ bi la ñuy xaar mu ñëw wàcc ci taxi ah déedéet kii kay lu sëriñ ah mbokk loolu mooy suñu mentalité waaye ngal la waaye xam leen ne mbokk ak mbaax kenn du ko xamee ci alal bu doon looloo tey jii ndax bu ñuy wax liste milliardaires yu nekk Sénégal yu nekk ci àdduna bi c'est très rare très rare jullit bokku ci wala jullit bu ciy bokk it xëy na day nekk ay dix-huitième ay nangam ay nangam waaye dalay leer na moom ñi nekk ca boobu yépp ay yéefar lañu ah loolu kon day wone ne alal du lu ñuy nattee ak mbaax ak ñàkk baax yanqu baa nga lele moo këram masana dur xiif bu tar dal nañu amuñu dara amuñu sax lu ñu jëndee léegi daal dañoo bëgg rek nga sarax nu matal ñu suñu suñu suñuy natt loolu nag biñ demee wax ko ci kanamu yusufa nag yusufa léegi xol bi tooy na nag ndax baayam mi ngi foofu yaayam mi ngi foofu ah ay frère am ca la nag doog a teggee casquette buur bi nekk ci boppam daal di ne leen waaw yéen ndax xam ngeen li ngeen defoon ci Youssouf biñ ko xoolee sans casquette rek ñoom ñëpp ñu darandoo seen géej ñi boo xoolee niñ koy waxee ci arab dafa yéeme sax xaalu ah innaka la anta Youssouf way ndax yow mii yaay Youssouf yaa ngi dégg kenn mënatu lan wax. Yuusufa ne leen waa man maa Yuusuf léegi moom yaakaar naa ne buñ mënoon a xar suuf dañ ciy dugg rek seey benn yoon ndax waxuma liñ ko wax liñ liñ ko def waaye xoolal keroog rek ñi ngi ñi ngi naan Binyamin bu sàccee magam ab sàcc la woon nekkatu yóote Yuusuf lañ leen waxal mi ngi noonu nekkatu Yuusuf lañ leen waxal léegi nag ñoom ñëpp ñu ne ngam Yuusufa ne leen waaw man maay Yuusufa kii mooy sama frère Binyamin yàlla dafa baaxe ci ñun ca ni ñu sonale woon Yuusufa lañ sonale woon Binyamin nga xam ngeen ne tamit ay doom yu bàyyi ñoom diis ñëpp ñoo bokk ndey ak bàyyi Binyamin amul lu dul benn ku mu bokkal ndey ak bàyyi kese ñu teqali ko ak moom 40 ans yaa ngi dégg sonal ko lu la ñuy wax ko ko bi ñu yégee ne sàcc gi am na au lieu sax ñu jéem a ko utal ay ay lay waaye lu ñu wax rek bu sàccee c'est normal ndax magam sàcc la woon gis ngeen mu ne nag sama frère mi ngi nii yàlla baaxee nañu li képp koo xam ne nii dafa ragal yàlla ci muñ yàlla du neenal ay jëfam Youssouf a ngi wax ne maa sama frère yàlla baaxee nañu waaye it yow jigéen bi sëy ci kër gi yow jeune bi yow kilifa gi kum mën a doon képp koo xam ne ragal na yàlla ca ragal yàlla mooy def ay ndigalam bàyyi ay tereem ba pare muñ dogal yi yàlla teg ci boobu muñ ko muñ ko rafet lu mu yàgg-yàgg suñu borom yàlla du leenal jëfam yàlla dana ko xettali yàlla dana ko xéewal ca loolu mbokk mooy mbir bi ak sabru wa taqwa taqwa mooy def ndigal yi bàyyi tere yi sabar mooy muñ dogal yi yusuf bañ koy yeew di takk di sànni ci teen ba loolu moom mënu ci dara dogalu yàlla la biñ koy jàpp tëj kaso mënu ci dara dogalu yàlla la waaye maadaama lépp muñ na ko muñ ko rafet muñ it muñ bi nga xam ne moo gën a metti ci muñ yi muñ yépp mooy keroog bi ko soxna si di woo ci boppam wax nañ leen ne la nga xam ne mooy muñuk tànn dafa bokkul ak muñuk lor li yàlla teg ci yow moom teg na ci yow mënu ci dara am maa nag ñu woola ci bànneex nga muñ xeex ak sa bakkan ba génn ca loolu mooy muñ gi gën a rëy gi yusufa muñ mu ne nag amul kenn koy ragal yàlla muñ ba pare yàlla di neenal ay mbiram te mooy fokk yàlla dana ko teral ci àdduna avant alaxira mi ngi noonu barakallahu fikum kon frère yi daal di ne qaalu tallahi ñu ngi waat ci yàlla laqad aasaraka allahu alayna yàlla day gënale na la ci suñu kaw wa in kunna la xaatiin te ñun day nekkoon nañ ñoo xam ne ay tooñkat lañu ay def ko ci bàkkaar lañu qaala la tasriba alaykum al yawm mu ne déedéet tey benn yéeg deel du leen ñeel tey yaxfirullahu lakum yàlla yàlla yal na yàlla jéggal leen wa huwa arhamu rahimin ca moom mooy ki ëpp yërmaande ci ñiy yërëmaate izhabu bi qamisi haada yóbbu leen sama xamis bi fa alquuhu ala wajhi abi sànni leen ko ci sama kanamu baay ya'ti basira dana dellu si doon koy gis waatuni bi ahlikum ajmain ca ngeen indil ma seen njaboot mboole seen walamma fasalat al iir ba mu demee ba teqalikoo la nga xam ne mooy caravane ba njëg ga ba mu génnee lii di frontière u Égypte rek qaala abuhum noonu la seen baay ba waxe inni la ajidu riixa yusuf mu ne ah man day maa ngi yëg xetug yusufa lawla an tufannidun bu ma bayul woon ngeen doyo dal ma jiñ ma ak ndof qaalu tallahi innaka la fi dalalika alqadim ñu ne wala ñi ngi waat ci yàlla na bàyyi nag yaa ngi ci sa réer bu njëkk ga rek mi ngi noonu mbokk gis nañu frère yi suñu borom yàlla waxoon na yonent yàlla yusufa bañ koy sànn ca teen ba la tunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yashurun yuusufa muñal nii ñu dajaloo sànni la ci teen bi da nga mas a taxaw ci seen kanam di leen fàttali ah di wax ak ñoom fekk na ñoom du ñu nekk di ko xam mi ngi noonu ca loolu moo tax ba yuusufa alayhi salatu wasalaam bi muy wax ak ñoom tëbul rek ne leen sax ba ngeen may sànn ci teen ba waaye da koo jaare la ci ay teggin ndax fàttali ko ngeen la ngeen defoon te booba ay jaahil ngeen woon mi ngi noonu loolu pour wane rek ne teggin yam ci jaar te it ma ko doomu aadama léeg-léeg it mu jaar ci ay jaar-jaar ngallaawaay jaar-jaar yooyu bu ko tuubee bu ko ko kenn nekk di fàttali mi ngi noonu bu ko kenn nekk di fàttali loolu ci seytaane la jógee jeune bi nga xam ne fi la nekkoon mi ngi doon col col ga bon di naan sangara di njaaloo mais tey changé na mi ngi ci jàkka ji mi ngi jàngal xuraan mi ngi nangam mais loolu ñëpp ci war a sant yàlla waaye bu kenn nekk naan ko waaye yaa fi nekkoon démb def lii def lii def lii déedéet bu doon loolu sahabatul kiram 90 pour cent ci ñoom ci kéefër lañ nekkoon waa ñu dugg ci lislaam loolu ñu bàyyi ci xel bu baax kon ñu ne ko ñu ngi wàcc yàlla qaalu tallahi bokk julit nga la waay julit booy waat waatal ci yàlla waxal billahi mi ngi noonu wallahi tallahi lii lépp bu la neexee waat ci benn la mi ngi noonu yonent bi alei salaam nee na kuy waat na waat ci yàlla wala mu nag nee na képp ko waat ci leneen lu dul yàlla mi ngi bokkaale tallahi ñi ngi waat ci yàlla yow de yàlla gënal ne la ci ñun te ñun bi ñuy bañ gënal googu de ñu juumoon lañu te it mbokk li yàlla gënale nga nangu ko loolee da ngay gis ne ci jaamu yàlla la bokk suñu borom mu ne am yaxsuduna naasu ala ma aatahum allahu min fadli ndax nit ñi dañuy dem bay iñaane seen moromu nit ngëneel yi leen yàlla defal mbokk bu leen yàlla defalee ngëneel ñaanal yàlla barkeel ko tuyaaba jum ci juddoo ngeen bokk ko yusufa nag ne leen tey moom kenn du leen yedd man du ma leen yedd la tasrib aleykum al yawm man bu dee sama wàllu bopp moom baal naa leen jéggal naa leen maa ngi ñaanit yàlla jéggal leen te it mbokk nañu xam ni ku tooñ jaamu yàlla boole na ñaar tooñ na yàlla tooñ na jaam bi ndax yàlla moo aramal tooñ te yàlla moom ay jaamam su ko defee waa ji nga xam ne dafa dem fekk nit ki mu rey ko duñ ne moom waa ji la tooñ déedéet dafa tooñ nit ki tooñ yàlla loolu tax suñu borom bi muy wax li mu war a def mun a tawbatan min allah mi ngi noonu loolu kon yàlla na yàlla jéggal leen suñu borom mooy borom yërmande ji ëpp yërmande te mooy nagam man miñ teg tiis yi maa mën a bale waxuma yàlla mi nga xam ne moo ëpp yërmande ñëpp ca loolu it mbokk da ngay gis ne ci grade yi gën a kawe ci grade yi la ay nit tooñ la nga mënoon a fayu ba pare nga baal leen ci yàlla tax suñu borom nee na wa maa yulaqaaha illa alladina sabaru wa maa yulaqaaha illa zu hazin azim nit tooñ la nga mën a fayu nga baal ko ci yàlla tax nee na ñi muñ danga ko mën a am ñi ko mën a am mooy borom cër yu rëy ca yàlla yàlla yàlla boole ñu ca mi ngi noonu loolu kon da ngay gis ni moom la Yusufa wax ak frère am yooyu yàlla dana leen baal mooy borom arhamur rahimin léegi nag mu ne leen yóbbu leen sama xamisa bi su ngeen demee ba ci sama baay jël leen xamisa bi rek xëpp ko ko ci bët sànni ko ko ci bët bu bu xamisa bi laal ay bëtam rek dana delluwaat di gis boo ko xamisa baa ngoog keroog moom la frère yi indi woon taqal ko deret ñëw na bàyyi xamisa yusufa baa ngi nii ñu ngi noonu xa mooy kon wañe ne ci liga lekk na ko xamisa boobu yu dañuy gis ne suñu borom ma ngi koy tuddaat keroog ba yuusufa nekk ca fale ba soxna si jiñ ko njaaloo xamisa boobu moo ko sauvé ndax ba jëkkër ji xoolee mu xottee ko ca gannaaw la xam ne yuusufa da doon daw soxna si moo ko jàpp mu fekku mu xottee ko ñetteelu yoon bi yàlla tudd xamisa bi mooy lii mooy boo demee xamisa bi bu ko laal yi dana wér wax naa la ci tafsiru démb ne lenn rek la ñuy barkeeloo ci kaw suuf mooy jeexitalu yonent waaye keneen ku dul yonent kenn du jeexitalu ci ci ay ay kiyam mi ngi noonu Urwata ibnu Mas'ud as-Saqafi bi mu tuubagul waa Makka yónni ko ca sulhu Hudaybiya pour mu convaincre yonent bi alayhi salaam mu dellu ni bi ak saxaabaam ba ñu dugg Makka bi mu ñëwee bokk na lu mu leen wax mu ne yéen waa mag leen di laa leen di yëgal Muhammad mi say boo lu ngeen man ci siñanteeg moom pacte ngeen def ko ndax ñee mu àndal day amul lenn ci àdduna luy tax ñu dellu gannaaw ci moom nee na buy wax ñun ñëppay sëgg nee na boo dee bu dee tafli tafli bi du laal suuf lu dul dañ koy këf ku nekk bomb sa yaram bu jàppee ba pare dañuy rayante bëgg rayante ku nekk bëgg lal def sa jàpp bi mbokk loolu daaw ñu ko defal abubakar daaw ñu ko defal omar yeneen ci bi alayhi salaam dong lañ ko doon defal loolu tax yusuf alayhi salaam bu mu muy sol mu ne bu ngeen demee bu ngeen ko sànnee sama baay rek sama baay dana dellu siwaat mi ngi noonu di di gisaat ah léegi nag bu ngeen demee dajale leen seen famille yéen yéen ñëpp dajale leen seen famille ngeen indil ma leen fii ci Égypte te booba Yuusufa moo yor pouvoiru Égypte buur ba ma nga fa woon waaye dafa déchargé wu woon lépp ci moom indi leen seen famille moo la seen jëgg ja dem bi ñu demee ba génn frontière Égypte rek Yaaquba mi ngi Palestine mu daal di ne njabootam man day xetu yuusufa mi ngi may xëy xetu yuusufa ak may xëy kaay lu ko bàyyi daal dëgg dëgg nag yaa ngi sa dof dof dof dof bu yàgg nga nekkoon ci yow mi ngi ci yow ba léegi rek yuusufa dafa jege fi yëpp ba bu gumba na ñoom liñ jàppoon mooy bala ko xetu yuusufa xëy yuusufa daa dugg ci kër gi xanaa wala mu dugg ci néeg bi lu ko bàyyi yuusufa jegewul fi yëpp di ngeen noonu tonte ne ne loolu yàlla ko may ay yonent muy xar baax bu yàlla may defal yankooba yuusufa mbubb bi sore ko des centaines de kilomètres moo yëg xet bi waaye tey yàlla woon nañu ay bàyyima yoo xam ne lu mel ne masalan ay tan tan daanaka mën na xeñtu mid lu jege presque mille kilomètres mi ngi noonu lu mel ne xat xat mën na séentu lu kenn xamul suñu benn waay buy ñëw ci tafsir bi daf may nettali seen benn waay bu doy waar daa dem ci benn kër soxna ah di fa dox tànki caaxaan mais ñan dañuy toog mujj rek soxna su ne ko dugal dugal dugal dugal dugal dugal dem mu ne ko lan la mu ne ko sama jëkkër a ngi ni bis mu ne ko ana sa jëkkër mu ne ko gisoo xat bi dem na dem na ca yoon ba tàllal tànk yi mi ngi ñëw waa ji jóg génn dem mais nee na dox na lu jege ay kilomètres doog a dajeeg jëkkër ji muy ñëw fekk xat bu moom xeñtu ne xet xet bi kenn xamul ay kilomètres loolu mooy flair boobu nga xam ne yàlla may na ko xat nga xam ne ëpp na bu doomu aadama xamu ñaata million te fàtte na mi ngi noonu ala kulli xaal kon loolu la suñu borom yàlla subhanahu wa taala defal yaquba alayhi salaam mooy li nga xam ne moom mooy xetu yusufa loolu mi ngi ñëw ci man mi ngi noonu cheikh ali ñu jël ci beneen bind rek jazakallahu xayra suñu borom mu ne falamma an jaa al bashir ba mu demee ba yegg si ka nga xam ne moo ko doon bégal alqaahu ala wajhi mu sànni mbubb ma ci kanamam ga fartadda basira yankuba delluwaat di aji gis qaala alam aqul lakum inni alamu min allahi ma la taalamu mu ne waa ndax waxuma leen woon ne xam naa ci yàlla loo xam ne xamu leen ko ci moom qaalu ya abana astaghfir lana dunubana ñu ne ko ay suñu bàyyi jéggalul ñu suñuy bakkaar inna kunna xaatiin ñun day nekkoon nañ ñoo xam ni ay defkati bakkaar lañu ay ni juumoon lañu qaala sawfa astaghfiru lakum rabbi mu ne day xelse naa leen a jéggalul sama borom innahu huwa alghafuru rahim seen borom yàlla day mooy ka nga xam ne mooy jéggalaate ca mooy yërëmaate mi ngi noonu mbokk kon yow ko baa nga Palestine jëgg baa ngi ñëw bi ñëwee ba yegg si ki nga xamee ne nii mooy mag yahuda bi indi woon bu bu yuusufa ba taq deret na ko sa doom ji till ga rey na ko nee na moom mooy jox mooy yóbbu loolu mu daal di jël mbubb bi ñëw bu fekk baay bi toog rek mu daal di koy xëpp ci kanam bi yankubu ne xafeet daal di gis jàkkaarloog mbubb bi jàkkaarloog ñoom léegi nag mu ne leen ndax waxuma leen woon ne xam naa ci yàlla loo xam ne yéen xamu leen ko loolee kon la chakka ni loolee mbir la boo xam ne ni lu am la donte ne mbokk ñu dégg ci it ne suñu borom yàlla moo moom gis moo moom dégg am déet gis gi ñu gis nañ ci sant yàlla de heure bu ko neexee jël ko yàlla it ku mu bëgg a delloo say bët delloo la ko ah bilal càmm mii xam ne suñ benn dëkkandoo ah mi ngi dëkkoon fi ci wetu jàkka ci liggéey yi na ba wàcc ñëw fii ci côté 22 toog foofu ba yàgg mu jóg avant mu yegsi ci këram gumb na ci diggante bi te loolu day am am na koo xam ne netti nañ ma ophtalmologie ba mu demoon ci ophtalmo ba di xaar ragam fa la tëgg rek bëgg na trace fa la gumbaa ba sànq ci suba am naa suñu borom nag ku mu bëgg a delloo ba ba tam delloo la ko benn silmaxu sëriñ Caam daa ñëw ci yonente bi alayhi salaam da ko yow mi yàlla yónni ñaanal ma ma gis waay yonente bi ne ko muñal xanaa xaw ma ne yàlla bu jëlee say bët soo ko muñee mun bu rafet àjjana mu lay xaar mu ne ko waaw yonente bàyyi ma sabab la ci leneen rek waaye ñaanal ma ma gis rek ah yonente na ko am baax na léegi demal nga jàpp nga julli ñaari rakka nga ñaan yàlla nangu sama ñaan waa ji jàpp julli ñaari rakka daañu ne yàlla yàlla na nga nangu ñaanu Muhammad ci man te loolu muy wasiila boo xam ne nii islam da koo saxal ba tey mooy julit dem ci mbokku julit te mu ñaanal ko li lislaam dul xam tey mooy waa ji nekk ndar nga toog fii naan yaa diw wala ki dee nga naan yaa diw loolu bi nga xam ne yéen ci yàlla ñaan waa ji ne xefeet gis ay bëtam dem ni bi ak i bëtam loolee kon yàlla moo mooy moom ay bët moom moom ay nopp moom moom lu ko neex ci ay ci jaamam léegi yow ko ba ne leen kon ndax xawma ci yàlla lu ngeen xamul ñu ne ah kay bàyyi loo ba sa wax dëgg la ñun kay ñooy ay toonkat léegi li ñu lay ñaan rek bàyyi ñaanal yàlla jéggal ñu ñaanal yàlla jéggal ñu yanquba ne leen danaa leen jéggalul yàlla foofu it la ca borom xam-xam yi wax ñu ne dafa bëgg a xaar ba njël jaamu yàlla gu ne daa am fu mu gën a baaxe jéggalu yàlla njël la gën a baaxe suñ borom mi ngi tagg jaamam yi ne kaanu qalilan min al-layli ma yahjahuun wa bil ashaari hum yastaghfiruun nee na jaam yu baax yi guddi dañuy taxaw lu bari di naafila bu njël jotee nag ñu nekk di jéggalu yàlla yaa ngi dégg loolu li ñuy gis ne ko mel na Anas ibn Malik loolu daan wax booyam yi buy naafila di naafila naan xoolal leen ma xoolal leen ma bu ñu demee ba fajar gu jëkk xar nga xam ne benn trait lay def bu weex jëm kaw ñu ne ko ah fajar gu jëkk jot na de mu toog nag di jéggalu di jéggalu di jéggalu ba fajar jot mu doogoo julli fajar loolu kon moom la xaar ko bàyyi bu njëlee naa leen jéggalul yàlla mooy kiy jéggalaate yàlla mooy yërëmaate loolu it mbokk mënees na koo ñaan ay diw ñaanal yàlla baal ma samay bàkkaar comme ni nga koy wax ñaanal ma yàlla ci sama tukki bi man ko ñaanal yàlla baal ba ñaanal ma yàlla baal ma donte ne nit ñi bàkkaar nekkul problème ci ñoom waaye loolu mbokk problème la mu warit ci jullit ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na amul benn jullit buy faat ñeen fukki jullit yu bokkaaliwul ak yàlla dara tiim ko jullee ko lu dul yàlla baal koy bàkkaaram tabal ko aljanna mi ngi noonu loolu mi ngi noonu donte ne mbokk bokkaale tasaaroo na lool kon dañ fexe ba am xarit yu baax ba bu ñu dee ñoom ñëpp bañ a bokkaale ak seen borom ñëw julli ñëw jullee la kon loolu mbokk da ngay gis ne mooy wareef te it fu ngeen mën a toll it bokk na tuyaaba yu rëy jaamu yàlla gu rëy da suñu borom wax faalam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li zanbika wa lil mu'minina wal mu'minat xamal ne yàlla kenn la del jéggulu sa bopp ci jéggulul jullit ñu góor ñi du jigéen ñi yàlla waay say azkar boole ci rabbi xfir lii bu la neexee wali walidayya walil muminina wal muminat te yàlla yàlla nag ma jéggal ma sama waajur ak bépp jullit bu góor ak bépp jullit bu jigéen yàlla waay bari leen di leen ko wax fu ngeen mën a toll ndax heure boo ko waxee ëmb na mbooli mi jullit yi mas a dund ak yi mas a dee yépp tuyaaba boobu kenn xamul nu mu toll mi ngi noonu ca heure boo ñaanalee sa mbokk jullit ci yéegu ko yàlla dana la booleeg malaaka malaaka bi ne amin yow it yàlla na la yàlla defal lu gën li ngay ñaan li nga noonu kon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax léegi nag Yuusufa ne wax ne leen dajale leen seen bagage yépp ngeen jógee Palestine ngeen ñëw fekk ma fii Égypte comme nag dajale ay bagage du yomb la noonu dañ leen bàyyi rek incha allah bu ñu fa dajawaatee suba ñu xool naka la ñuy demee Égypte ak nan la naka la leen Yusufa di teeroo bokk mi ngi noonu wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain dama ñëw ci jàkk ji naafila gu ma ñaari rakkay fajar léegi ma ànd ak mbooloo mi julli ba pare ndax mën naa su ma paree rek jóg daal di koy fay naam bu dee du jàkk ju muy jur fitna mën nga ko def donte de bu dee suñu mazhab maali gi ñuy def fii ñoom duñ ko nangu waaye loolu lu mën a nekk la loolu lu mën a nekk la comme it bu la neexee bàyyi ba bu doon suñ jamono tey ji sept heures rek day fekk jant bi kawe na diggante sept heures ba midi foo ko fi fayee baax na mi ngi noonu waaye boo jàppee ni dama am benn occasion pour fay ko fii ñuy sëlmale rek gannaaw ba mën ngaa jóg julli ko mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam dañuy wax ñu ne Yuusufa ak ay frère ñu ñëpp dañoo taaroo am benn ñu nag seen papa ba pare ñu dafa bu leen jaandoo yi ñu ñëpp benn yoon pour xam kooku lan la ci jubloo daal
waaw loolu moom loolu démb moom lañ doon tafsir loolu tafsir nañ ko démb ca moo di ne mi ngi ci jublu woon pour bët bañ leen a laal ndax bët lu lu lu am la ci lislaam loolu la taxoon mu ne bu ngeen demee na ngeen teqali ko bu leen duggee ci benn bunt loolu mi ngi noonu bokkoon na ci tafsiru démb bi waxoon nañ ci lañ jàpp ne incha allah nit ñi dañ ko mën a jëriñoo wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam waaleykum asalaam ci suuf ndax nit ko baax buñ ko robee ci suuf dafay am lu muy jeexital ci suuf bi bu doon looloo bokk dañuy gis ne Madina armeel ya fa la ñu doon rob ñëpp ca ña gën ci xeet bi ña nga tëdd ca baqiya doomu aadama bi mbokk la koy jëriñ mooy la mu jiital waaye la koy jëriñ du suuf buñ ko suul mi ngi noonu makka ñu gën a baax ci xeet bi fa la ñu tëdd ñu gën a bon fa la ñu tëdd madina naka noonu su ko defee daal lu ci bëri mooy ay moyen ki indi rek booto yi xew waaye booto yi xewul kenn xalaatu almuhim daal nit ki daal bu faatoo war nañu xool la nga xam ne mooy armeel yi gën a jege ñu yóbbu ko foofee suñu koy déplacé it na doon loo xam ne dañ caa jublu jox koy mbokkam mais bañ caa jublu ne suuf tel moo gën suuf tel lu tax mooy suuf bi dañ faa suuf seen jiw am na ñoo xam ne dañ naan suuf tel dañ koo fiddaawu kuñ fa suul texe nga mi ngi noonu am na lu gën a garaaw loolu sax benn xale bu nekk fii ci tafsir bi nettali na ma foo xam ne ba ñu demee yóbbu fa seen néew bi kilifa gu mag a ñëwee dañ ne seen xel dal ndax malaaka yi laaj nit ci bàmmeel xamuñu ndax dëkk bi am na ci kaw suufam déet ndax yàlla mosu leen fee yónni loolu da ngay gis na mbokk suñuy wax rek la waaye dara amu ci wallahu subhanahu wa taala alam waaw naam xam naa kon ñu mujjee ca mbokk bee rek ngeen baal ma waaw bismillah waaw waaw ah mu ne mu ne bu dee waaw naam yusufa yonent la woon ba mu nekkee dem ba nekk majeur la ko suñu borom yàlla def la nga xamee ni ni moo nekk ab yonent moo tax suñu borom yàlla ne jox naa ko xukma jox ko ilman muy xam-xam boo xam ne yàlla da koo def loolu kon yusufa alayhi salaam yonent la woon temps yi mu nekk Égypte yëpp yàlla da koo defoon mu nekk yonent ba pare yàlla def ko mu nekk buur te loolu lu raar la ci mbiru àdduna boole yonent ak buur comme ni ko Daawuda meloon comme ni ko Suleymaan meloon noonu it la ko yusufa alayhi salaam meloon yonent la woon buur la woon encore mbokk kon mi ngi noonu yal na yàlla jagleel ñu fi dunya xasana wa fi laaxirati xasana wa qina azaban naar wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain